ci teefal sëriñ Aliou mii ko Touba ca kanam ànd ko ak kilifa yu tedd yi ñu dendal euh, directeur des domaines ak sëriñ am Baye Sow bi def ne ko xam-xam ko garab président chambre de commerce de Dakar ñu taxaw tey jii fas yéene jëmbat ay garab ci axe bi toll ci juróom-ñaari kilomètre loolu nag day liggéey bu am solo boo xam ne dafay dellusiwaat ci liggéeyu Touba ca kanam bi mu initié bi mu initié woon depuis bi Touba kanam tàmbaleeg léegi jëm ci wàllu environnement rawatina jëmbatul garab xam ngeen ne tàmbali woon nañ ko ci axe diggante Mbacke ak Touba ba yàlla defal nañu tawfeex ànd ko partenaires yi nga xam ne ñoo jàppale Touba ca kanam ba axe boobu réussir nañ ko ba actuellement ni garab yi def naa xool lool ci liggéey boobu nag ci la ñu continuer mais toujours rek bu ñu amee projet reboisement wala projet beneen bu mu mën a doon bu Mais aujourd'hui, je suis là en tant, en que talibé. Euh, ce programme-là est initié depuis presque plus de 10 ans, avec, plus de 8 ans avec le collège Bédiba. Donc notre pépinière à Dakar. Cette pépinière a un programme de production de 100 000 L'année de, dernière, je vous parler de nous avons remis à la disposition du Khalif 55 euh, Cette année aussi, euh, le marabout a jugé que il va coordonner personnellement cette opération. C'est pour cela qu'il a appelé les services, qu'il a appelé deux fois les djurines de Touba Tchakanam, et nous aussi, pour nous dire que maintenant, cette fois il veut que on vraiment règle problème entre l'entrée du péage jusqu'à l'entrée de, de, de, de, la ville de Touba. Donc, pour ce, ceci pour dire que nous ne sommes que des talibés, nous souhaitons que nous faisons aussi cet appel pour demander à tout un chacun de protéger Camille Settal. Cette opération parce que la croissance du Khaya, la croissance Donc il faut toujours la main de l'homme. Mais si c'est fixé, et bien fixé, dans deux ou trois ans, il n'y plus besoin d'être sûr. Ça va partir. Donc vous savez que le madame nous a que euh, Serine Touba a arrosé de sa propre à Ndiare un cachetard. Pour dire, pour dire que c'est un arbre centenaire. Donc, mu prenons cet appel euh, parce que c'est déjà fait par, par euh, euh Doukari pour dire que nous tous, on doit vraiment euh, encadrer, aider Touba Chekanam. Je sais que le service policier, son aide ne fera pas défaut parce que je vois que le capitaine qui est lui il suit très bien l'opération. Même même, même avant 2000, 2022, il suivait quand même ce qui se passe à Dubaï. Donc pour dire que vraiment, on est content, on est vraiment satisfait, on souhaite la participation de tout le monde et on remercie le service forestier, surtout son directeur général et ses collaborateurs. Le chef de l'État est venu demander la ñun région des eaux et forêts ak agence sénégalaise de reforestation euh, nañu tëral programme boo xam ni ak suñu mooy dëkk dëkk yu mag yi boo leen di dugg ci buntu balaa nga àgg ba ci biir nañ ko def ay garab ci ñaari côté yëpp ndaxte loolu day rafetal gox te daf koy di ko jox image bu rafet bu ñu jógee ci astrocier yi ñu dugg àgg ci biir dëkk yi dem ci mbedd yi dem ci kër yi programme boobu moo tax tey ñu ñëw fii tey ànd Touba ca kanam xalifa général des mourides joxoon ndigal waa Touba ca kanam nañu ñoom it sóobu ci programme boobu ba tax tey ñu ñu ñëw fekkee mbir mi bu doon mbir moo xam nag lu am solo la gis ngeen ni tey Touba Mbacké ñëpp a gën tey ñu farlu si mbir mi loo dee wane ñun suñu mbébét li ñu gën a soxla mooy suivi bi suñu xel gën na ci suivi ndaxte dañu indi dèjà grillage bi ma jox leen ay ay citerne fi ñuy def ndox bu ñuy def pour bu ngay def irrigation bu tàgg matériel pour jëmbat indi nañu donc lépp lu di laaj pour mu rëcc dund da dafa daje ba pare nit ñi dañaa faral ni jëmbal ba pare jëmb di wuti lu koy aar waaye lépp lu koy aar ñu jëmba rek samp lu koy aar ñu ci rafetlu nag euh, liggéeyu président chambre de commerce moo nekkoon président coopérative exploitation exploitant foncier sénégalais ñoom seen biir dañoo xëy ñu jëmba tey ci ci ñoom la jóge ëpp ëpp na léegi daanaka fukki at ñu ngi leen yar foofu ci pépinière bi nekk euh, mbaaw donc muy engagement boo xam ne daal ñu lay gërëm tey yéen a liggéey ci àll bi yéen xam njëriñam yéen a ci kanam ci lu koy suuxat ci lu koy aar di rafetlu aussi participation xëy ndaw ñi am ngeen ni xëy ndaw ñi programme boo xam ni président de ko tëral 10 000 foo dem ci Sénégal da ngay si xale yi sol seen yu vert nga dem Oussouye nga dem Salémata nga dem Kaskas dikk foo dem ci Sénégal da nga gis ay jeune sénégalais sol seen di liggéey ci reboisement bi fépp fu woon ñu ci ñëw ñoom it dafa ci suba ñu ci mbir mi occasion pour ñu si gërëm leen agence reforestation bi bii directeur général Ba jiite agence bi ñu ko doon dégg rek ay cesekere ñu ni cëngali yu demee noonu waaye bi ñu tëralee agence bu bees yi yàlla teg ko ci bopp di agence bu am fépp lay dem ndax kenn mësuloon dégg agence bi Touba mësulam waaye ren gis nga agence bi fii la gën a def sax liggéey fii kon tey ñu ngi fanaan ci Ranérou dañu dem ba Matam ñu wër Sénégal yëpp lépp tey gox bu nekk soxla garab tey di fa taxaw pour naaw payum sëñ Touba moo gën payum nguur sëñ Touba fayal moo gën nguur la nga dem trésor ñu toll sa bulletin ñu am mbégte tamit dugg ci programme tubaa ca kanam nga xam ne ñun président def ñu ko sas mm-hmm. daf ko woo woo ma ni ma léegi agence bi sas naa lépp jëm ci ma di Sénégal bay di ànd leen ñu làmbaat ci xol fu ñuy fu ñuy doore yàlla def ñu doore fii si Touba ca kanam macha allah ah yeneen gox yi nag am nañu problème yeneen gox yi am nañu problème waaye ñun incha allah xam ne li ñu fi def dina law dina réussir ndaxte pas-pas bi ñu gis tey ci suba. Mhm. engagement bi ba bu ñuy ñibbisi. Mhm. ñi ñaa ngi des ci kii mhm. di defaraat di moté gay yooyu. boo dégg la sëñ bi ñu ngi kontaan trop trop trop di gërëm waa Touba ca kanam. ci engagement bi. di sant it wax dëgg yàlla El Hadj Fall mi nga xam ni depuis 2015 la ñu commencé ànd ba léegi. kër yëpp la mu la ma dugal. fii salle bi fii toog naa fi. yàgg na ma toog naa fi jour boobu waxtaan waxtaan lu rëy. dafa xaw a yàgg nag moom mu dugal ci famille Touba si ndiwén la la la la la est-ce que est-ce que te maa ngi ñëwul ñu doon dara ndax ñu jege woon sëñ bi yëpp da ko defee ne woon fonk doon na may doon nag fonk doon na mu fonk yooyu ñu baax ñu baax ñëpp te boobu ndaw la waaye ak dalam ak ak ak ak xalaatam ak gis-gisam. gis-gis bu rëy la yoroon. ci na la fu nag ñaan rek pour programme bi ñu sumb nii. mu war law ci Sénégal yëpp. ni ñu ko dóoree ak li ñu am tey. yàlla may ñu ko yeneen ndam yu mel noonu ci feneen fi ñu jëm comme ça président mun a kontaan mu bañ rëccu ci lu mu jëkk liggéey bi waaw euh, xam naa ni suñu euh, xam na fi ma jaar ak euh, sëñ mag sëñ Fall kii sëñ Fall fi ñu fi ñu jaar ma saa ko nettali xam naa lu ci jataay privé rek <laughs> mu nettali affaire bu kéemtaan xewoon mm-hmm. waaw loolu xam naa ne beneen jamono rek incha allah ñu waxtaan ci waaw Ila Touba bi dañ ko war président daf ñu sas mu président def ñu woo mu ne ñu mu ne man li mu jaaxle mooy bu nee bitim réew dëkk bu ma jub dama gis garab yi topp tëli yi bu rafet lu tax duñu ko am fii mu ne ren Ila Touba il faut ngeen taxal ko hmm. semaine prochaine incha allah hmm. bëgg nañu door Ila Touba bi ci njëmbat ci njëmbat bi Dakar ba Touba waaw ci péage bi wuti Dakar ñaari côté yëpp loolu lañu bëgg incha allah <laughs> waaw moom bu nekk day am euh, trois rangées garab day am ay garab yoo xam ne dañuy protéger pour njur ji bañ a bañ bañ yàq deret euh, ay euh, mellifera acacia mellifera day euh, am ay garab yoo xam ne bu ñu màggee am ay garab yoo xam ne bu ñu màggee xer bi day bëri mm-hmm. am ay garab yoo xam ne bu ñu kii def day am ay fleur day rafet j'espère mm-hmm. boo jógee Dakar rek mm-hmm. danga kii bi lay topp ko day tax peut-être tamit oto saxaar bi ñu génne garab bee koy manque air bu ñuy bu ñuy bu ñuy nooy mhm. day day gën a oyof day day tax ba ba ñu gën a sell mhm. ñu a ñu gën a am wér-gu-yaram mhm. dafa laaj ay moyens nag mais soobee yàlla dinañ ko tax na waxul waaye réew mépp yàlla mel na incha allah incha allah incha allah incha allah jógee noonu jaar Tiwaawan wuti Ndar. incha allah jaar ko wuti Kaolack. jaar ko wuti Kaolack. loolu la lool ci réew mi. lool ci li ma fee rek léegi mais garab moom daanaka jëlul waxtaan lu lu lu yaatu. Hmm. moom ñëpp a ko xam. Hmm. nee na li mu wax fële rek. ne garab jurul waxtaane lu yaatu la ñëpp ko xam. garab moom adduna bépp xam na njëriñam. nee na garab moom adduna bépp xam na njëriñam. ñu ñuul ñeeg ñu weex ñeeg ñëpp xam nañ lu garab doon. ñu ñuul ñeeg ñu weex ñeeg ñëpp xam nañ li garab doon. garab moom. garab moom. waxtaane ko daanaka amul du ko jar. nee na waxtaane ko daanaka du ko jar. ñëpp xam lu mu doon. ñëpp xam lu garab doon. moo tax yéen ñi nga xam ne yéenay sàmm garab yi. yéen ñi nga xam ne yéenay sàmm garab yi. seen fay yàlla rek ko am. nee na seen fay day yàlla rek ko am yàlla leen yàlla fay. yàlla leen yàlla fay. fi ngeen bëgg a yegg yàlla yóbbu. fi ngeen bëgg a yegg yàlla yóbbu leen fa. gis nañ bu baax. gis nañu itam li ngeen saware woon fële. nee na gis nañ bu baax gis nañ li ngeen saware woon fële. li ngeen ci sonn ak waxtaan waag yëpp. nee na li ngeen sonn ci yëf yi ak waxtaan waag yëpp. lépp ñoo ngi ko doon seet. sëriñ bi nee na lépp ñoo ngi ko doon seet. xam nañ ne nit ñu baax ngeen. nee na xam nañ ne nit ñu baax ngeen. xam nañ ne président ndigalam. xam nañ ne président ndigalam. Euh, fonk ngeen ko fonk ngeen ko waaye daf ci loo xam ne lii. waaye daf ci am loo xam ne lii. boo fa àggee boo fa àggee. Mm-hmm. sa sa jikko la koy may. sa jikko moo la koy may. Mm-hmm. daf ngeen ndigalal président. daf ngeen ndigalal président. waaye boole ngeen ci seen seen yéene. waaye nag boole ngeen ci seen yéene. incha allah bu nañ bëgg bu baax. ngeen jëf. waaw yóbbu leen ci biir. ñaanal leen mu ñaanal suñu kilifa yi. Mm-hmm. ñaanal tamit euh, colonel major Baye Dibane yi. ak mbooloom Eaux et Forêts ñoo xam ne moo leen jiite mm-hmm. mu ñaanal sama équipe bi nga xam ne ay gune yu ndaw ñu ma topp ci ci ci ñu président sas mm-hmm. ñaanal ma tamit xëyu ndaw yi si àll bi mm-hmm. ay lañ si àll bi fukki junni yor jumtukaay dem si àll bi di jëmbat garab lu ne xaj na fi euh, nga nga nga ñaanal ñu yàlla yàlla aar ñu yàlla sàmm ñu te ku nekk li nga li nga jëmbat nga mën njëriñoo ci àdduna moo tamit nga mën kaa njëriñoo feneen ëllëg nañ maa se tàllal sëriñ mi nee na mi ngi ñaan ci kàttanu yàlla yàlla na yàlla faj seeni aajo yàlla leen yàlla sàmm fi ngeen bëgg a yegg yàlla na leen fi yàlla yóbbu Cheikh Ibrahima barke Cheikh Ibrahima barke